bi ma laan doon wax naan Ousmane Sonko mooy candidat bu Macky Sall ndax façon tooñ ak ërtël bi Macky Sall di def Ousmane Sonko ci Sénégal kenn du ko def nit lu dul ni da bëgg nit ñi sopp kooku ndax dafa demoon ba tegu ci jaay doole goo xam ne xel mënu koo nangu ak ay tuuma ay yàqada ay sos te ñi ko doon def jamono jooju dañu amoon protection wu Macky Sall alors tay Macky Sall nekkatu fii APR nekkatu fii di sos ak di yak der ken mënatu ko def métier muy continuer yenn say ñu taxé wa Pastef ay nitu fitna d'accord bu ko waa Pastef nango itam waye yéen bu ngeen ñëwee jël remplacer wa Pastef ci opposition bi continuer ñom lañu ñu doon doxal kon yéen li ngeen leen doon mal du dëgg caaxaan baxul duma sax yag ci APR ndax jaru ko ay Amadou Ba lay wax da ngeen a ni Amadou Ba moy opposant principal bu président Bassirou Diomaye Faye ak passe Pastef non non Amadou Ba militant au Pastef la fiñu tagaté tàggatee Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko lañu ko tagaté même aperçu biñu am ci Sénégal Amadou Ba mënut politique te xamul politique Amadou Ba dañu ko def ministre Amadou Ba dañu ko ni xëccul ngir premier ministre. Amoudouba, Douba, dañu ko xéxal ngir mu nek candidat il musta combat personnel pour xamni day ambition bi mu am ci politique manam politique Amadouba moy tok muy dox au Sénégal ak politique Sénégal fi mu li Ousmane Sonko li Bassirou ak ñi Sénégal ci ay ci ay persécution emprisonnement amul bu du daj amul sax jot bi te ku dundul loolu mënoo opposant bu dëgër actuellement parce que askan wi dañu indi changement dañu sonn ci politique bi te dañu bëgg doxal motax tax maa ngi dànkaafu waa APR ni len li won demb wonina justice bi fi nekkon demb mo fi nekk ba tay bu ngeen jëlé tay justice naan dafay nekkal parti au pouvoir d'accord amna parti au pouvoir di utiliser justice ngir def lu ko neex xëy na yéen loolu ngeen mais justice bi fi nekk tey ak lu mën di xew dafay agir par rapport ak situation de dëkk bi dafay agir par rapport ak nit ñi li ñuy def dëgg-dëgg kan moo mën a cautionné ci yéen ñii ñi teg loxo kàddu yi ñu yëkëti ba tax ñu teg loon loxo kan moo ko mën a cautionné ñu teg ko ci sa kaw da ngeen di wax nii

sa ci téléphone sax tuumaal ngeen ko Ousmane Sonko eh ngeen bëgg a tout tuuma yi ci Ousmane Sonko ak yeen ngeen ni tay dafa nekk ci pouvoir bi utiliser justice déedéet ñaar yu bokul la moom kay doon justice di ci gàcceel ay gor ndax gis ngeen bi Bassirou Diomaye fay faloo ba léegi ñu tudd mbaa ñu taas kenn ci opposition bi yéen kay yéen dégg ñu ni sàccoo ngeen sànni ngi bëgg ba la ñu commencé di ubbi seeni ay dossier ngeen orienté xalaat yi faneen yóbbu ko faneen ci ay débat yu baa lool te askan wi duñ ko nangu li ñu nangu mooy réew maa ngi ci tànki dox yëf yaa ngi dox xol yu tàng yi wàcc na ñëpp àndandoo ci genn kàddu président ubbi ay dialogue ci anam yépp nag politique société économie ba noppi weñ loxoy sàcc yi ngir ñu teg ci suuf alalu sénégalais yi etc. cetera et cetera dëkk bi commencé que soppeeku ci xar kanam ci yëg-yëg ci doxalin ngeen ni du fi am nañ saboté mais amoo leen chance parce que c'est une partie amoul, opposant ablay Daouda Diallo moo fa nekk Amadou Ba bokkul ci yéen bu leen jaawale ñaar yu bokkul bu ma weddee Amadou Ba ñibbisi na commencé di yëngal waaw Amadou Ba Amadou première conférence de presse am naka defee ci siège à père.

na ko essayé seet doo leen ko ko permettre kon di ngeen ma nangul ni Amadou Ba du seen militant li ci kanam raw li bu may gisaane tey dama naan Amadou Ba militant wu Pastef la li ci kanam nag raw li te lu taaxam dafa yàggul moo tax demee leen ci xel ak yëfu nit parce que Sénégal day soppeeku ndax changement bi fi am du fakkastalu askan wi ka tànnal seen bopp